mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa gan ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg changé changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yaa ngi yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar Cité Port kenook Juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg. Amin